monsieur le maire de la ville de Fatigue, monsieur madame Mamadou maa ngi lay nuyu di wax ne monsieur le ministre d'État docteur Cheikh Kanté xam ngeen ne dafa am lu ñuy naan man nag sama wax dafa am yoo xam ne leen tooñ ndax département bi dafa dama fee gis benn nag buy doxantu te nag boobu dama jàpp ne docteur Cheikh Kanté bi nga xamee conseil départemental jox ma maire got it! xam am na ñu ciy taxawaalu ci département bi waaye docteur Cheikh Kane xam na ni ñun ak loolu dañuy seen taw ba tax na dama jàpp ne président Macky Sall suñu kilifa suñu responsable dul dara sax lu mu liggéeyal siin doomu siin gu mu doon lu mu fi bëgg dañ koy jox ci nii wala ci naa docteur Cheikh Kanta keroog bi ma woowee téléphone dama la ne président Macky bu tegee ak xale sax ne moom la moom la soo ma woowutoon sax si lépp loo ma ñëw taxaw commune Diarès ñëpp a ngi fi awa xam na liñ fi andi andi wuñu pancarte waaye mobiliser nañ ba mu neex ñu andi ko fi te képp ñu xam nag xam ne lu sincère la def te lu ñuy def lu ñu gëm lay doon. buñ la nee yow dañuy àndal rek dinañ ànd yow te buñ la nee dinañ la jàppale rek dinañ la jàppale li xew boobu jël nañu ko avec les barke démb Khady Diagne Seck wax na ko président Macky Sall dafa recevoir jigéenu département Fatick yëpp may nuyu au passage suñu honorable député Adja Binta Mbaye Seck ak sama sœur bi nga xamante ne moom tamit maire la di Fatou Kiné Thiaré Ndial président Macky Sall ba ñu waxee moom ba pare dafa ne Khadim Samb dama bëgg nga jóg gërëmal ma sama jigéen ñi ndax ba may njëkk a wut mairie Fatick dox nañu 2 kilomètres ànd ak man ca mairie ba doxaat 2 kilomètres jóge mairie ba dem sama kër. loolu jigéenu Fatick ñoo ma ko defaral te ba ñu ngi fii ak man donc jigéenu jërë ngeen jëf fi ngeen taxawoo président Macky Sall rafet na nañu gën a takku doon benn di def benn di wax benn daa di jox ndam docteur Cheikh Kanté jox ko maire nga xam ne ñoo nekk ci commune yëpp pour la coalition Benno Bokk Yaakaar vive Benno Bokk Yaakaar vive le président Macky Sall vive Sénégal